halaan bikum amul benn moodu moodu boo xamante ne jàngoroy coronavirus dal na la ca Italie soxna si toogal réewum Sénégal ca itali Milan moo wax li ni mel Vox Populi yeggee ñi ko benn doomu Sénégal amul jàngoroy coronavirus itali kon yéen ñi nekk Sénégal xam ay mbokk moodu moodu itali na seen xel dal Aline Badara Mbodj ne man moodu moodu laa maa ngi fii Italie fi jàngoro ji am fa lañ nekk dëgg la naam jàngoro ji dalagut si kenn si ñun te ñaanu yàlla mu ñu nekk fi mu toll ni fañ ñoo ber dugg ak génn déplacement yu bëri mbooloo mu dajaloo fañ ko fee xaayee ndimbal tamit xamuñu ko ba tax suñ xel dalul ñu jaaxle donte nag janna a doom yaa ngi ci l'observateur source a yéen a kaay na ko Italie jàngoro ja na fa juróom benn doomu aadama ñaar téeméer ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama am jàngoro ja ñetti téeméeru sénégalais ya fa nekk ay moodu moodu fañ leen a ber isolement yéen a kaay bi na Sénégal nag ña ngay def xoddeeku ca ba nga lakkaleegut fi mu toll ni aéroport Blaise Diagne fañ faa yóbbu ay docteur ay jumtuwaay ay matériel képp ku bëgg a dugg ci réew mi fa ñu xool ndax am nga jàngoro jo am déet surtout nag soo bàyyee ko réewum Italie wala Chine ak yi ni mel jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ci Vox nee na préparé nañ fi mu ni ñeenti hôpital yoo xam ne ku jàngoro ji dal fa lañ la yóbbu faj la nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na jàngoro ji bon jooju ni muy lawee ci adduna bi bëri na tasaaroo na fi mu toll nii jaaxal na tubaab yi buñ mooy tuut du baax de ba tax laas yéen kaay ne ñun de Sénégal ñu ngi moytu jël suñu matuwaay a dugg ci réew mi ñu xool la surtout boo jógee juróom-benn nag yu Afrique sow jant fas yéene nañoo boole seen doole xeexandoo jàngoro ji mu bañ a yegg si seen réew yi tey ci suba la ñu xamal ndaje ci institut Pasteur loolu lu baax la neen lu baax ci réewum Sénégal njiit réew Macky Sall moo ko def démb ayaw seetal tey ba njaay la dem daloo seen parc bay togg wàllu courage ci ngelaw li lopp ñaar téeméeri milliards lañ ca dugal li ni mel na musu fee am njiit réew Macky ne li ma bëgg mooy 2022 ñu am téeméer ba jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci courant boo xam ne ñoo ko moom liggéeyal ko suñ bopp ndax réew mënta suqaliku mukk te amul courant bu doy li war a doy ci nguuru Macky gi mooy yàq gu métti pasar pasare xalalu askan wi ci jënd ay essence ndax su leen waxee ne ci juróom-ñaari at jënd nañ fi essence lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi milliards ay libération moo ñu ko xamal 2018 rek lañ dugal ci réparé oto bu paan jag-jagal lu ëpp 30 milliards diggante ba moom lañ dugal neneen ci njëndum essence oto yoo xam ne li muy génn Dakar bëriwut fan lañ lakkee boobu benn at lan lañ defagum ci réew mi seen fast track bi ñu doon wax sonal ci nit ñi xana mu tey l'observateur ne kër ga wax saar di yëngatu ci wàllu pétrole ak yi ni mel ña nga ay jafe-jafe de yow seet tal seen njiit la Xaadim Ba tekki na ndombal tànkam njiital lok Afrique moom it teggi na tànkam ki war teggi tànkam ndax moo bloqué dialogue politique bi du kenn ko may Macky Sall njiiti réew mi si du quotidien moo ko wax ba pare nag ëlbatiku di neexal Idrissa Seck ak Malick ba tax yéen a kaay bi na gis nga Macky fay foyee ku jégi ak a la muy kekkantoo nag moom bun Abdallah Dionne mooy Macky amaat beneen mandat ba tax mu xëy di laajte naan yemale mandat na a kaay bi na ko yow moom li ngay wax bëriwut waaye saa boo waxee rek réew mi yëngatu am la kaay na ko te moom loolu mu wax dafa wuuteeg li Macky wax Macky 2014 foo xoon ne nañ dakkal mandat yi limité ko te ñu dakkal ak tukkeem Sénégal Semi Keba bañkat bi bañ franc CFA kat ji ko dàq football ca biti ni ki démb les éco yéen a kaay ñi ko xamal xanam gu doy waar nag lañ ko jàppee fitnaal ko bu ndoxatal ko pamti pamtee ko na ko acca mu ne leen man bëggoon naa génn réew mi waaye maa bëggoon a jaar Cotonou jege ñaalam nag ñaawlu nañ nañ ko def ndax ba pare ñu fitnaal ko loolu baaxut li baaxut ci Cheikh Kanté ak Moustapha Diop mooy xamatuñ dara a yaaw seetal l'observateur nee na si ay jamono xale xaalis xale carte gab lañ leen tuddee woon maye xaalis ñoo ci gënoon gaaw fi mu toll nii nag kenn déggatul leen xaalis ba jeex te am am moom saxut xam goo dégg ñàkk cay topp ñi naroon a ñàkk ba mu rëcc mooy Liverpool West Ham leen mbuqi ñaari bal ci benn waaye laata jongante bay jeex égaliser nañ ba Sadio Mané dugal ñu mujj mbuqi leen am nañ ndam waaye sonn nañ de record yéen a ñu ko xamal la mu ñu moom stade yéen a kaay mooy Napoli Barça tey ci ngoon la Messi nag bëgg wan a boppam fa Maradona nekkoon sunu làmb yéen a kaay jox Alioune Sarr njiital CNG tontu na ñi koy attaqué bokk na ca Bombardier nee na ko yow Bombardier amoo sañ-sañ naan ñun nañ ñu dàq jëlee ñu ci seen CNG bi loolu du sa cër te man Alioune Sarr dugal naa sama loxo ci formation Yaxya Joob Yékini Tyson ak Eumeu Sène buñ ma tax a wax de les éco yéen a kaay na ko xanaa waxaat ba tey yéen a kaay bi moom it di ñu wax ne am na ñaari xale yu am benn at ak juróomi at fa ñoo naan supp mujj faatu ñàkk seen bakkan Allah yëf yaa nga amee ca caaro yi Ndakaaru waaru lañ lekk daal moo leen ray xamuñ nag lu nekkoon ca lekk ga seen baay ma nga tëdd lalu hôpital moom it lekk na ak seen beneen rakk turbine yéen kaay moom di ñu xamal ne benn soxna daal moo jël téléphone u jëkkëram dugg ca whatsapp ba fekk fa ay photo xale yi jigéen yu xaw a doy waar ak jëkkër ja mu ñëw na jëkkër ji yow looy def ak xale jigéen yi ak photo yi ci lu ngeen nekkoon jëkkër ja naan ko ah cest à xaaral ma waxal la rek jabar ja jàpp ko fa koo ba damm loxo ba ndekete jabar ji ab judo kaala fa jàng judo ba yàqu moo tax loxo jëkkër ja doon def whatsapp moom damm na ko ki lim def garaaw na de source a yéen kaay na ko may ma ma wax la lu gën a garaaw téeméer junne yoon benn waay daal moo fekk nijaayam tëdd di nelaw mu rocci paaka su mi tuboo yi nijaay ja rek jàpp ma Touré ya dagg ko këttéet allah yëf yaa nga amee ca diiwaanu Linguère Amadou saw ginnaaw bu ñu ko tegee loxo nag tribunal bu Louga daan na ko ñaar fukki atu kaso yu muy tëdd ak liggéey bu mu sañu te bañ waa ma ne xatte bi gën a maandu ci yow moo ñu dagg yow sa bos dagg sa xawra nijaay def nga lu ëpp de yàq nga àddunaam ba pare lor sa